salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen béggee di kontaan ci di leen ñaanal jàmm ak salaam di jéggalu nag démb xam naa ñu ngi ñuy wooye appel i message di nu xamal ni démb gis nañ ni ca suba ba tey dugaloon vidéo dañoo amoon tuuti nag maanaam ab programme loolee nag maanaam moo juróon yéex a indi yëglekaay yi mais ñu ngi koy jéeg yéex indi xibaar yi démb ba tey daanaka xibaar duggul ñu jéggalu ci loola ndax cofeel gu ngeen am ci télévision bi moo tax bu ngeenu déggul dina woo loolee nekk na mbégte ci ñun nekk mbégte ci yéen ñi ni topp bis bu ne Marca yëglekaay Lionel André Messi la indil bonbon beñu dugub boo xam ne yaakaar naa ni gars yi bu àndee Café Touba dégg jàmm mooy footballkat bi ëkk ay ëpp ay trophée ci àdduna walla ngal kàpp loolee nag mbégte moomee marka bokk na ko Catalan yi nga xam ne ñoo yoroon Messi ba loolee ay trophée bu fekkente ni Messi taxaw na naan samay trophée bu ci génnee am am ca Barcelone jeexal na kon Barcelone euh, bokk na ci équipe yi nga xam ne daanaka ñoo jàpp Messi euh, defar ko ba fii mu toll kon catalan yi euh, bég naa ci yéen kontaan ci yéen merengue yi nag ci laay dem tuuti nag bala maa yëgal revue de presse bi maanaam kii nag di seenu football kat di gardien international belge Ndiol Mutoy di kile nga xam ne daanaka moo nekk kile di gars yi ci ba Courtois laa leen di waxal ma nga noonu ni taxaw jonn nag mast Celta Vigo Real Madrid njortu am na ni moom mii di gone gi mën naa bokk ci ñi taxaw ca kaaya ndax yaakaar naa ni am njool la comme ni ma ko waxee mu am solo ah, bu baax a baax jëlikaay yi ñëw nañ ci Hansi Flick mi nga xam ne fi mu moom it daanaka trophée yaa ngay bari ci moom ak taxawaay bu mucc ay bi nga xam ni am na ko ak équipe bu Barcelone waaye gars yi a fay bàyyi lépp dem ne moom lay football lu tax ma indi ko nag gars yi tëb fi yëglekaay katalaay dañ ma alaaji Malick sunu équipe bi dañ koo namm tey maanaam baraj baraj ji Lamine Yamal nekkee woon ak Ansu Fati mi ne ci tuus yi di bitar ñi lu neex loolee namm nañ ko bu baax a baax jàppale na ci mën leen mënu ma leen cee jàppale waaye nag dama leen di jox ndaje dimanche da gis ci wàllu football nag lu coqaru mbuus lu neex ndax gaa yi euh, fintoon ni championnat yi ubbiwaat na Sénégal laa koy commencé waat nag ci li nga xam ni euh, moo nekk revue de presse yi nga démb tàggatu gi nga xam ne am na ko coppati yi mu doon def ak li di ah, baraj baraj ji gars yi bëgg ngeen ci moom moom ñancaw international yëglikaay bi nag ah, teg na ko ci taabal ji ndax moom moom mi fi mu toll nii Sénégal amul lu ko gën gën tànkum di yoram bee bari na ay xar baax ministre bu sport mi nga xam ne nag démb gars yi dañ ko doon dóoral di xam le ni ah, kii di Malick Niang wala euh, nu man di sant Malick moom moomee nekkoon nag ab arbitre boo xam ne bu jàmbaare la doon yebbi ay kàddu nag di xamle ak di wane di cëpp-cëppi di wane ni maanaam moom moomee nag moom la ñu fal euh, ci CNC ministre bi nag nee na wax joojee teguwul fenn loolee amul te amul benn yoon ci communiqué bu ñu génnee di xamle ni nañu xaar ba ministère bi yebbi ci ay kàddu ndax fi mu toll yaakaar naa ne yuuxu euh, gaaw na te it fi mu toll nii ñu ngi gëstu mbir yooye bu baax a baax di xool nag nu nu mën a lijjantee lambi Sénégal ba kenn ku ci mën a nekk gis ci sa bopp ànduma ak kii di Malick ci kàddu yooyu muy gaaw di félicité boppam ndax jàpp naa ne daa war a mën a taxaw ba gars yi notifié ko mu leer buy wax mu am këyit wu leer nañ wu jóge ci ministre des sports xam le ni moom mii moom lañ tabb waaye loolu lépp France daal di xëddeen amul mu génn nag di manifesté wu donte ñu bari nag jàpp na ni mën naa gérer làmb ji ànd naa ànd waaye man ànd naa ci tamit mu ànd ak dal dal goo xam ne nag dana mën a tax ñëpp xam ni moom mii war naa mën a gérer li nga xam ni mooy làmb ji ndax euphorie bi bëgguma mu yóbbu ko benn yoon gaa yi stade Euh, bi nga xam ne mooy bu Léopold Sédar Senghor gars yi stade bi nag dama leen a bëgg a indil benn par benn na stade ba mel gars yi nañ àndandoo ci image yi mucc ay bi leen Aladji Malick TV indil bu ko defee ngeen mën a gondaandaat lu neex a neex ci meilleur stade yi nga xam ne bokk na ci nekk ci sowu jant ci côté bi ma féete ndax boo ci stade ba la nekk la ca jam ñaajo bii moom dana bekk ci gën a am solo gars yi extrait